bugguma wax sax mu mel ni ay affaire wu racisme la wala yooyu mais nag attends réew mi tey soo compté cent mille méngee nañ fi cent mille njaayee nañ fi cent mille jóobee fi cent faale nañ fi cent mille ñangee fi cent saale nañ fi mais jaas matu matu cent mu mënuñu fi sans wax dëgg rek mënuñu fi sans. mais euh, qu'importe mais de toute façon ak ku ñu lay jàpp on regarde sa carte d'identité nationalité sénégalaise point tey kooku suñu taaloon c'est pas important ñooñu leen taaloon tey du wàññi dara du leen wàññi dara ñoom mais tey ñu bëgg a taal réew mi te it baa ngi yëgal benn nag euh, loolu c'est très grave. mooy euh, li ñuy wax ne président Macky Sall loolu lay def ci mi mooy wàllu waaso gi. maa ko wax maa ko wax man maa ko